ci li nga xam ne mooy huitième de finale yi fas yéene ak ñi nga xam ne ñooy waa Angleterre dimanche bi nga xam ne moom la ñu dëgmal journal bi di Rewmi Quotidien nee na ñaar fukki at ba Sénégal gëjee qualifié ci huitième de finale yi ci huitième de finale yi journal bi xëy dañu xibaar nañu nag démb bi match bi jeexee mën na la ambiance bi bëri woon na la la lool mën na la ambiance bi bëri woon na ci dëkk bi dëkk bi di riir moto yi di klaxonné ak ñi nga xam ne ñoo yor seeni oto mën na la mag ñi génn nañ ci mbedd yi di wanal mbégte mi nga xamante ne am nañu ko ci équipe nationale bu Sénégal waaye ñi nga xam na ñooy xale yu jigéen yi a xale yu góor yi ñoom tim génn nañu ma ne la ndakaaru njaay ak yeneen gox ci Sénégal démb nag ma ne la riir la doon def fecc mi mel ni tulleeg male drapeau Sénégal ak ma yi yéen i gi nag nee na am na sax suñuy dëkkandoo yoo xam ne ñoo ngi fii ci Sénégal di ay guinéen ma ne la gis nga gis nga gis nga ginn yi démb bi matt bi jeexee ñoom tim dañoo jubilé ba seen xol sedd ndax nee nañu dañoo gis seen bopp ci Sénégal yéen i kaay gi di réew mi ko ñu xibaar naan ñu yi démb lu ñu lépp joxe nañu ko ngir nag daal di mën a qualifié ci li nga xam ne mooy huitième de finale yi yéen kaay gii di la Soleil nee na Sénégal ñooy dajee ci huitième de finale yi Angleterre ak pomme de terre nag bokku la journal bi di la Soleil nee na quel match quel joueur joueur yi nag démb nag daan nañu rendre hommage ki nga xam ne mooy Pape Bouba Diop yéen kaay gii di l'info ñu xëy fekk fa Aliou Cissé mi nga xam ne mooy entraîneur bi équipe nationale bu Sénégal nee na nag victoire bi nga xam ne ni ki démb am li nga xam ne mooy huitième de finale yi mën na la ko ci Malick Sy Souris ak Jules François Bocandé yéene kaay gi di direct news xëy ci huitième de finale yi ndax dafa am ñaari carton huitième de finale yi journal bi nee na nga xam ne moom la ñu dëgmal ñu koy fekk fa Aliou Cissé nee na naam qualifié nañ ci huitième de nga xam ne moo des yooyee moo gën a jafe yéene kaay gi di Sud Quotidien ñu koy fekk fa Kalidou Koulibaly nee na garder les pieds sur terre te nag ñu fàtte match bi doxoon suñu diggante ak Équateur te jublu ci li nga xam ne mooy Angleterre Angleterre bu Henri Kane yéen a kaay gi de la Quotidien Kalidou Koulibaly daat nay wax ne il faut que nag ñun Sénégal équipe nationale bi ñu daal wane na ñun ñooy champion d'Afrique yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa njiitu réew mi di président Macky moom tim daat nay kontaan bu baax a baax moom njiitu réew mi sax nag di jubilé ba pare nag daal di ñaax ñi nga xam ne ñooy gaynde yi nee na nag dem leen ba jeex yéen a kaay gi de Les bi jeexee Aliou Cissé dafa jooy jooy yu métte métte métte yéen kaay gi di Vox Populi ñu koy fekk a fa Kalidou Koulibaly daat nay wax ne coupe du monde bi day dog di commencé coupe du monde bi day dog di commencé Ismaïla Sarr nee na nag match bi nga xam ne moo doxoon seen diggante ak Équateur ñoom daal pare woon nañu lépp ngir nag sacrifier seen bopp ngir mën a qualifier ci huitième de finale yi yéen kaay gi di Rewmi Quotidien bàyyi mbir moomee wax ci nag beneen mbir bu am ci réew mi muy transport bi dem beeg dikk bi nga xam ne jamono ji laisser-aller bi ma ngi mel ni tulleeg male ma ne la ñi nga xam ne ñooy taxi taximan yi jamono ji nag ñoom ñaawlu nañ bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy def transport te waru ñoo def transport maanaam auto particulier yi nga xam ne ñooy def transport loolee moo naqari taximan yi waaye nag cag-cag yi nga xam ne ñooy def transport loole tamit bokk na ci li nga xam ne moo naqari taximan yi waaye nag li nga xam ne mooy kalandoo yi def transport loolee bokk na ci li naqari taximan yi journal bi nag nee na ñi nga xam na ñooy taximan yi nee nañu sonn nañu lool lool lool la ñu sonn yéen kaay gi di vox populi ñu xëy fekk fa Aminata Assome Diatta daat nay wax ci faatug Fulbert Sambou mii nga xamante ni ba léegi maanaam ñu bari ñoo ngi jiixi jaaxa ba xam lan moo ko rey dafa lab waaw wala déeta daat nay wax ne nag jamono ji moom Aminata Assome jaata mi fi nekkoon ministre du commerce te far ci Macky Sall nee na nag bu ñu demee ba ay takk der di réer di faatu ci anam boo xam ne anam bu day waar bu lëndama lëndama boobee nag askanu Sénégal kenn ku nekk war naa tiit ci nag lu jëm ci wàllum sécurité ma moom Aminata Assome Diatta nee na mbir mii mbir mii dañ ko war a leeral maanaam mbirum ñaari gendarme yi Assome Diatta nee na dañu ko war a leeral te nag képp koo xamante ni laale nga ci wala nga la ab complice ñu jël ay daan lal ko ci sa ndodd journal bi nee na Fulbert Sambou ni ki démb nag daan nañu koy jébbal boromam waaye na kenn autopsie wu ko yéen kaay gi di bés bi nee na nag njabootug Fulbert Sambou ñoom nag sàkk woon nañ ñu daal di autopsie seen doom ji ngir na xam dëgg-dëgg lan moo ko rey waaye kenn autopsie wu ko démb la ñu ko jébbal boromam mën na la gis nga bi ñu koy jébbal boromam te nag armeelu Saint-Lazare gisoon nañ ñu bari ñoo xam ne doon nañu xëm mën na la am ñoo xam ne nag doon nañu jooy ñii mer ba maara day taali yéen kaay gi di réew ko di jeexee di ñu xibaar naan ñu garde rapproché yu man Sonko yi nga xam ne tegoon nañu leen loxo dugal leen ci kasu bi ca diwaanu Mbuur ngir nag jafe-jafe yi nga xam ne moo amoon sa diwaanu Cikki ni ki démb la ñu leen doon attee juróom lañ woon ñaari nag bàyyi nañ leen ñu ñibbi nee ñu leen yéen defu leen ci dara waaye nag ñett ñi nag ñoom tëj nañ leen lu toll ci benn weeru kaso kenn ki Modou Diop la tudd ñu naan ko Momo kenn ki Lamine Sakho ñu naan ko Petit kenn ki di Jaxate Diop ñu naan ko Limousine journal bi nag nee na Omar Jonn mi nga xam ne APR la bokkoo moom la ñuy wax ne moo créé mbir mi moom tëj nañ ko lu toll si ñaari weeri kaso yéen i kaay gi de la quotidien yor yor xëy ñu xibaar naan ñu sëriñu daara yi sëriñu daara yi mer nañu de sëriñu daara yi mer nañu lool loola ndax nag li ñu tëj si ay sëriñu daara ci senegal moo bëri loolee moo naqari sëriñu daara yi ndax nag nee nañu ca diwaanu Kaolack lu toll ci fan fanweeru sëriñu daara lañ fa tëj ca diwaanu Diourbel lu toll si ñaar fukki sëriñu daara société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen de presse